mbokki Sénégal mbokki lamb le 22 janvier ñu ngi jëm ci arène nationale ànd ak le promoteur Jack Wrestling production ki nga xam ne bu demee lit simple ñu nangul ko cëram bu ñëwee lit avec frappe ñu ne gongo moom la ñu fas yéene àndal ci arène national ci première édition drapeau Moustapha Guèye président directeur général bu Sénézéo muy le lion de Mbour fils de Elas Ibou Guèye ak sayer bu Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum nekk président wu parti PDPS ba noppi nekk intellectuel hors ndax ku xam Moustapha Guèye xam ne ingénieur la en aménagement du nekk leader la nouvelle génération nekk l'homme de projet kii la Jax fas yéene delloo njukkal ci combat bu mag combat bu amateur yépp di xaar muy diggante Liss Ndiago bu jàmm gën Sicap Mbao ak Ardo bu Golf Gaynde ñu ne Jax bu yemoon fii rek lamb ji toj waaye daf caa toftal première édition drapeau ami Collé Thiandoum doomu Bombardier bi taq ripp ci B52 nekk gaynde Mbour boroom la puissance TV muy dox ci diggante booy Maroon ak Calambeer ñu foog ne fa lay yem Jax ne ma bankal say baaraam ci combat préliminaire ya caatu Ayda dana bëreeg Daouda Fall Boy Petersen bu Malika xayta ak Johnson sox-sox ak site ceede ak site songaan petit sele ak cargo ndaamal daaru ak général jamuus ak fils de mbay jaañ ma ne am ah, mbokki amateur yi kon bés baa ngoog le janvier la ci arène nationale grand combat ba jar na amateur yépp fàq mooy diggante liis njaago ak ardo muy un choc des jeunes nekk combat bu nar a maa ngay soog a dégg man. wallaahi wa taalaay sama maam bi jur sama yaay dafa soxna jinne ñeenteelu soxnaam junne woon loolu moom moo waral léeg mooy def yooyu moo koy defaale. Ah. tegtal la. Ah, ay léemaay sar bone sar sar bone yoo bone eedam baw jam yeeso laatin fatin jaaban muskora kumba bete xaadim anta bete xaadim anta bete fan génn ma ci de kumba bete xaadim anta bete génn ma ci mbir mbar mbor mbarara mbor mbor non génn ma ci mais lu waral sa teewaay fii ci Parcelles Ardo open press sa booy la waaw non li waral sama teewaay fii euh, lenn la kii sama rakk la sama xarit la te fii xam nga ñun ñëpp benn lañ gis nga keroog ñun bi ñu xewlee yow yaa ngi fa mu bàyyi yitam yëpp mu ñëw te bu ko neexoon du ñëw parce que am na combat mais dafa bàyyi yëppam mu ñëw kon xam nga loolu dafa nekk loo xam si lu rafet la ko di koy bi nga xam ci la jëm yàlla na ko dama lay lekk de. di koy ñaan di koy ñaan combat bi mu jëm nii. barke sëñ Tuubaa yàlla na ko yàlla may yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla may ndam lu rëy rëy combat bi mu jëm ni di ñaan yàlla na ko may ndam la. parce que ñaaga lay bëreel ñaaga la xamul xamul xaddi. barke Seydina Mohamed comme dana bokk ci combat yi gën a gaaw ren ci saison bi. li ngay wax. bu ko jàppee mu jeex. Liss Ndiago bi mu fi mujj parcelle la duggoon dafa am mbërëk mu fa jëlee woon xam na sara xam bu yàgg. lii sarax saraxam euh, euh, kii la Koni. lan barke sëñ Fallou Mbacké amul parcelle. ah kay fii géej gi fii nii. non non Koni amul parcelle. bu lu leen fii am na fi nii ci tool yi fii. Koni amatul de xamu leen sarax am na fii bu lu werante Koni am na fii ci parcelle nii sorewul. man de gisuma Koni man. barke sëñ Fallou Mbacké am na fii saraxam yomb na liis du ñaar dërëm. pour wala nga ardo. la ko Tafa Mbër defoon lu ko raw lañ koy def. Tafa Mbër da ko dóoroon mu daanu mais kii ardo la. buñ ko jàppee làmb ji jeex. mais yow waroon ngaa bëre sa diggante ak Wouly bëre woo la moo war waral ah non sama combat ak man fi mu toll nga wax gars yi nañ ma jël quoi dégg naa affaire galaaj moo tax bañ maa jël. Ah. yu bon yi doon def yëpp din naa ko. sa combat ak ak parisien dégg naa nga ne xuma sa loxo bi nga ko dóora ci ab nag ko dóor xuma lan. looloo ma yee. wala loolu. waaw ah, mais mbër yi am na ci ñoo xam ay vampire lañ. non non amul ci làmb ji. barke sëñ Touba am na ci xam ne wóor na leen mbër yi am na ci ñoo xam si ay vampire lañ. vampire daa am si làmb. waaye vampire daa am ci président bi nga dóoree si sa loxo fan la dal. barki alxuraan gam sama ma sama loxo ma nga dóoree ci ci ci bopp nag laa dóor sama loxo bi. non non moom parisien la de du nag de. waaw mais doom yaay waaw bëggee barki sëñ Ba ah. moom parisien la du nag. waaw mais non non mais dafa am yoo xam si ay vampire li ma la wax ni xam naa ko loolu. ngay wax waay barki sëñ Touba Mbacke. loolu moo tax léegi ma iñaan sama combat bi ni mu waroon a bëri ni waa ji bu ñëw dama koy dóor mu génn. at wule daa feebaroon. waaw mais gàllaa ji la parce que sëf yi ma ko def dama ko sëf sëf yoo xam ci teer bi laa ko def bu mu siiw nag. teer bi laa ko nee na daa feebaroon nee na tane na na jamee kay jàpp dal ngeen. bëriw maag moom. lu tax da nga la gamaas tey jii ñeme nga maa jox wuli ma bëre moom. waaw ñeme naa koy laa soxla. non non non non. barki sëñ maa ko man. gamaas wuli nga lee. waaye bëgguma kooku waaye bul ma wax wuli waaye yow sama doom yaay nga yow xam nga lamb yi ba jox may adversaire. oh yaa xam lamb. Adama Diouf dafa aay ci booy yii nii de dafa aay seen kalaat gi de. Adama Diouf dafa jël benn bët bi baaxul. Alaaji Mbaye moom ba nag oh, yaa xam lamb barke. oh non doom man nagu ram laa nag yemee daw man daw ma wenn nag man dama wopp bu yàgg tey di soog a ñëw. da ngaa bëgg ñu tëj ma 100 mètres. lu da ngaa bëgg ma def crime nga may wax ay waxu Tapha Gueye Tapha Xaa. doom yaay. jox ma Abdou Diouf mi amagul combat. bàyyiwul bëri ay waxut. waaw boo ma jox man nagu Ram laa nag yemee daw ma wenn nag. ànd ba jub. pare naa billaay walaay bu ñëwee bu la neexee bu ñëwee yow na la jox xaalis bi. yow waxaal ak moom xam nga yow xam nga lamb. fii bari na ñu bari ñuy am combat yaa leen di wutal lamb. combat boobu ko ma suul sama ndey ji ma jurul xoolal yow bu ma woo ni ma Calcio ñaata lañ lay fay lépp bàyyi naa ko sa loxo. doo waxaale waxee ci site bi ngay dégg. wasaare. dama ne ah. bul ma woo di may laaj ni ma Calcio ma fay ñaata. ok d'accord ma bëgg. Ah. moom mooy nga ni ma Calcio combat bi taxaw na. yow lu la fay baax na man nee naa la nag wu laa nag yemee daw daw mu wen nag man dama feebar nekk ci gétt gi. taxawalal combat bi. jeex na ndax mbër ma mbër ma jël dinaa la liggéey ba nga yàqu ma léegi amatuma yërmande de. loolu mbëri du la jël. parce que ah yàq sama combat booba léegi. wax dangay entraîner rek. waaw baal man damay entraîner. mais nag bu loolu weesoo ku baax bu loolu weesoo nit gënu la xaarim fii bëri na combat yu bëri yoo xam ne gars yi ngi bëri fii taxawal. non baax moom da nga koo def di lay ñaanal yal na la yàlla defal gudd fan. yàlla nga dund ba def yàlla nii mes dama rappelé ni ko yàlla xanaa da nga maa fàtte. Ah. waaw dundal waay mais temps yi taxaw temps yi taxaw nga de.